nos non non moom lañ lay wooyee non abaa laa lay wooyee abaa avant no stress. daaw nga ñëwaat ren nga ñëwaat mu nekk match boo xamante ni initiative bu am solo la. entre rap gis nañ fi rap les animateurs de radio. ak les anim ak ak euh, les artistes. wax ñu tuuti resquis. Euh, waaw lii ko commencé wooyee à partir de tey fête de la jeunesse. fête de la gis ngeen ñi fi ñëw yëpp gis nga kilifa yi fi ñëw yëpp ay ministre ay ay ay ay ay ay ay ay ay président de ay maison de presse ay waykat ay animateur homme de culture yëpp ñëw fi donc vraiment c'est la fête